ku ne watt na ko doon na xaritub ku ne waaye alxuraan ci boppam yëg na ni mësta am ci xaritam yu bari yooyu xarit bu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba alxuraan xam ngeen ni bi ko siñ Tuubaa di jël fekk na mag ñi daan ko mokkal waaye daanañ ko taaxuraane it alxuraan daanañ ko taaxuraane alxuraan daanañ ko booleek ay tama di ko tëgg di booleek jàng alxuraan ji alxuraan daanañ ko jël di ko booleek ay riiti riiti sanri xaram la daanañ ko xalame waaye daa gis mag moo xam ne daan jël kaamil ak ko ci kaw néegum ñaxam mu tim ko am na ñoo xam dañ ko daan teg ci derub xar bàyyi fa jukki yi ba jukki di wadd loolu lépp lu jiitu sëñtubaa di ñëw alxuraan tolloon na foofu sëñ bay jaxate nee na daanañ ko booleek ay tamaa kay riiti mu des ca géew ba ndaw wurus wu tuuti kuy dem ngoroom téere ba lay yóbbaale def kom ndagaan ku ko mënul di xoole daam ni jalañ ni habibi wal habib bu dul kon nag moom mu alag ñu mooy tamit kon daa am ci étape bu sëñ tubaa fekk alxuraan am fu mu ko indi waaye li muy fonk fonk alxuraan buñ ko waxtaanee ñu xam ni kenn mësu koo fekk ci alxuraan mbooleem yëfi yàlla yépp luñ ci tudd Sëñ Tuubaa ci jiitu tey buñ jëloon tawxiid tawxiid muy wéetal yàlla ak teg yàlla place ba ell ci moom wàccuwaay bi am ci yàlla buñ ko waxtaanee woon di ngeen yëg ni ginnaaw rasulilaay ki gën a jox ak boroomam mooy Cheikhul Khadim barki dem wax naa ko ci ci télé bi gis nga xareb Samba Sadio Samba Sadio mi ngi fi ci digënté Jolof ak Njaambur ab dëkk la Ahmadou Cheikh moko xex ak Lat Joor Diop Toba bi faral Lat Joor ñu ray Ahmadou Cheikh japp ci mom ay dongo yu bari nango ci mom alal ju bari ben borom xam-xam bu mag bo xamni dunia histoire tol fo xamni du neex tuddu turam bokkon ci mag ñi yilifoon mi Lat biko ko Lat Joor ndax Ahmadou cheikh alal ji ñu jële ci mom man nañ ko def ak mang, ak mang moy bu l'islam di xare ak kefeur bu l'islam gagné alal dañuy jële ci yéefar yi mom lañuy tuddé ak mang loolu dañ koy jël julit ñi seddo ko wala ñu duggal ko ci baytimal Lat jor laaj borom xam-xamam niko ndax alal ji ñu jëlee ci Ahmadou cheikh man nañ ko def ak mang, mu ne ko waaw nañ ko def mu ne ndax tamit ñin jappé ci ñom man na leen def ay jam parce que bu l'islam di xalé kéfer ñan jappé ci yéfer dañ leen def ay jam mu ne ko ndax man nañu jël ñin japp def leen ay jam borom xam-xam bobu ni ko waaw loolu man na nek parce que ahmadu seexu da doon woote ak yonent té nit bu dé woote ak yonent buñ ko rayé dañuy japp ni ab yéfer lañu ray ala la man ko def ak mang man nañu jël ñin japp ci mom def ko ay jam ñu doxal atté bobu am kenn ci wa kër lak jor ko ñuy wax Ibrahima Koddu donon jarbaatu Lat Joor jorjo ñu seddu ko ci jam yu bari seddu ko ci yit alal ju bari muy utilise alal joju ba yalla wommat ko bis mu ñew ci señ bi jaayante ak señ Tuubaa señ bi niko xarab samba ca masa am nang ci genn sa loxo bam set ndax ñoña du ñuy jaam alal ibrahim ko du jobit yalla baxé ko mu daldi di def nako serigne bi wax djel alal ji genn ci loxom bayyi jami yu ñibbi wax joju nak di dox di dox ba aksi ci Lat jor Lat jor ni serigne bi man dama yàpp wala dama min wala kilifa gi ma yor fi mu may atel te raw ko mom la yàpp wala mom la min ba tax limu mu att ci diine l'islam te mak ko moro way mu xey dindu ko ni lolu atte bi wérul legi dina ko wo mom ci bopam mu ñew fi leeral ma li mu wax fan la ko tek borom xam-xam bi tok ñu jongante ci xam-xam mu wax fim ko tek borom xam-xam bi wax te woor na ma ni borom xam-xam be ko raw la jor nak tambali di wolu serign bi ngir mu ñew leral waye day yabal ndaw sa bu yabalee ndaw wolu serign bi serign bi yabal ndaw ni ko ma ñew mu bind ab bataxal yonne serign bi di wolu serign bi serign bi bind ab ni ko ne ko ma ñew gis nga lettre bi seigne touba mu bind ku ñuy wax ibrahima sàll la ko sëñ tubaa jox dëkkoon tay ba ndakaar lettre bi seigne touba da cey bind ni astahi antarani malaikul ilahi, tahmiluni aqdami ila malikin xayrillaahi ne lat joor ahmadu nee jombuna jomb jeego di juk yalla yep escorté ko ni ahmadu ngi dem mu jëm ci ben bour budul yalla xam nga ni mënu ko weesu safar gi ñu nekk biñ ko débarqué moom sëriñ bi mu dugg ci bato fii nga xam ne bi muy départ xamul fan la jëm ay noonu ma ko jàpp taqale kook ay mbokkam taqale kook ay taalibeem sëñ bi dugg na ci biir bato bi te xamul fu ko noonu yi di yóbbu nee ci biir bato bi lay doo ko xame ni bërëb sangam la jëm te ci ab saalum saalum la ko déggee wa daxala fi safinati rajulun min wolof min xutturi saalum wa ahda bi hadiyatin sanniya waxaala inni sami'tu bi annaka taati fi safina yuraada bika yuraada bika nahwa gabon wa lizalika ataytu an yasuru nii wa yasdimuni nii nee na ab salum salum mu dugg ci biir bato bi ni ko dama dégg ne yaa ngi ñëw ci bato bi dan lay yóbbu dëkk bu ñuy wax gabon sëñ bi nee na wali wali haza rajuli sami'tu isma gabon nee na ci kooku laa njëkk a dégge baatub gabon ci laa xamee tamit ni kon man gabon laa waaye salum salum bi dañu ko damaa bëgg woon nga dénk ma bàyyil ma fi lu ma mën a téye bu ma la gisaatu it man cee jàpp xool dénkaane bi ko Sëñ Tuubaa dénk ci circonstance yu doy waar yooyu nga xam ne ay noonu ma ko téye escorté ko jëmale ko dëkk boo xam ne xamu ko waaye lum lum lu mu wéet wéet ak lu mu wéttili ko wéttili ko day tawxiid yoo xam ni moom rek moo ko amee dañuy salum salum bi waalam bi na kunta بأن حيث كنت بأنه لا إله إلا الله ومن توجه لخير الله فستعلم أنه لا إله إلا الله ومن توجه إلى الله بخير محمد فستعلم أن محمد رسول الله دانيكو ماغي لاي دينك nga xamni fo meuna nek nga xamni ben bu rek am bo xamni jaamu ko da am njariñ ñak ko jaamu di benn yonent la yàlla tànn gënal ko ci mbooleem yonent yépp muy rasulullahi ku gëm ni am na beneen buur bu dul yàlla di dem bés ba xam ne benn buur am muy yàlla ku bëgg gaam jaamu yàlla te jaari réew ko ci yonent bi di nga dem bés ba xam ne yonent bi yàlla ko yónni xoola jooju tawhid beneen bi ci topp mooy bu mu déparé këram gii ci Mbàkke Bari Jolof ci tukki bi bii 10 vingt 1895 ba yendu jeewal fanaan fa ba julli tàkkusaan ware foofu aw fasam ñëw Louga ñëw kokki tàmbalee taalif xasida ak asmaa ahlu badri bi mu fa nekkee ba julli gee la warewaat foofu aw fasam tubaab yi escorté ko mu jëm luga gis nga sëñ bi nee na bi ma déparé Louga ci tukki bi ci waxtu gee fas yu ma war awnullahi la tudd boobu yàlla jaa ngi taw taw bu metti nee na ci ab taw laa riñaane Louga laa riñaane kokki wuti Louga waaye boobu nee na fas yu ma yor aw mol la fas yu tubaab yi ma yi nga xam ne ñoo ma jël si mënuñoo dab fas yu ma yor man nee na léeg benn tubaab daan ni ma yaa cheikh sëñ bi ma wàññi mu ni ma mahlan bi nafsika wa binaa ay teen ñoo dimbali te dimbali sa bopp wàññi li ngay dawal sa fas yi sëñ bi nee na ma ni maa baalu mar uusin ursila bihi yata mahalu yéen nu leen si seen kilifa di yónnee ngeen jël si ma ngeen di xoole ba ma raw leen ngeen nan ma xaar ma yéen lii ngeen def man maa ko waroon a def man maa waroon a yeexantal ngeen may soñ waaye yeen wuru leena yeex ngeen may soñ gis nga señ bi ne la bi ñu ba djub luga ba nga xam ne digënté ak luga lu ndaw la dafa am ci tuba bi ko xam dafa am ñewante ci man dama yërem da dawal sam ba aksi ci man daan ne ya yaa cheikh ma ko labbay kam munima ma tasallah faqad qaraba al addu señ bi mané ko mbàkke munima lo ma xam ci ay ñaana ki muslay balé bo nga def ko ndax jige nga sa noni té te falaa xamna liñ la ëmbël ak liñ lay wajal man ci ñom la déparé xam naa lañ la fa waxal xam naa liñ lay waajal xam naa plan yi mu tëral ngi sa jëmm ji loo xam nag ci ak ñaan goo xam ne jàpp nga ni boo ko ñaanee mu musal la boo yeboo def ko nee na sëñ bi ni ko allahu laa yajisu wala yataxallafu ñaari bari la ko sëñ bi wax sëñ Tuubaa tontu yàlla tëlewul dara te du wuute continuer aw fasam nee na sëñ bi nee na bi ñu demee ba àgg luga ba dal tubaab bi ñëwaat ci man daan ma man de bi ma lay wax ne la loo xam ci ak muslaay bay boo nga def ko dama ko waxe ngir ñeewant la ngir xam sa noonu yi li ñu la waajal su ma neexoon du ma la ko wax ndax lii ma wax buñ ma ci toppoon mën nañ maa jàpp waaye man maa amul ñeewant ci yow waaye nag li ma la wax lii nga tontu moom jàpp naa ne du tontom yàlla du wuute ak dina mi ngi may gis man jàpp naa ne li ma la wax du tontom damaa bëgg boo amee ay musulaay nga def ko bala ngaa àgg ci gaay sëñ bi nee na ma ne ko wa in yamsaska llaahu bi durrin fasa fala kaashifa lahu illa huwa wa in yamsaska bi du wa in yamsaska llahu bi durin fala kaashifa lahu illa wa in yuridka bi xayrin fala raadda li fadlihi sëñ bi nee na ma ne ko yàlla moomu dama laa bëgg a xamal ne bu fekkee ne damaa daa nam mu ci man lor amul kenn ci fi yàlla yi ku mën a dox sama digganteeg lor googu bu fekkee ne yàlla daa bëgg ma lor amul ci mbindeefi yàlla yi ku mën a dox sama digganteeg loraange jooju waaye bu fekkee damaa bëgg a teralit amul kenn ku mana dox sama digganteeg teraanga jooju xam nga ñun ñi ñëpp ñaari police mën nañ ñoo jiital te kenn du am fitu daw señ bi nak téeméeri nasaran ak fuk ak ñent ñoo koy wër tawhidam di gëna yok té te 1895 nenañ ku ma sa gis ab tubab te jutewuk mom dara da ngay dugg sa rondal bam jall mag ñi sax sëñ Basiir wax na ni liman raa nasraana yaxsibu min malaki rahmani maanaam foofu la tubaab tolloon buñ masaan a gis ab tubaab mag ñi dañuy jàpp ni kii ci malaka yàlla yi la bokk 10 août 1895 ku mas gis ab ngay jàpp kii ci malaka yàlla yi la moo tax li Abu Nuhas wax Abu Nuhas dafa wax wax ju am solo dañu laysa ala llaahi bi mustankarin أن يجمع العالم في واحد نانا يالا تليول جيل ادنا بيب داف كو سي جن جم سيغ بسير واخنا سي من نانو باخال خادم ني غيناو رسول الله واخي ابي نواس جوجو كين غنو سي ياي شيخ احمد بامبا خادم رسول كون لول موي ديغنتيم اك بروامام بون كو توبي دي نين خامني كودور رسول الله سيغ توبا مو لا غنو بول داو ياكمتي ووما لما لا يوني لي نيك سي بي كوم نيك سي دنم دوروتول غوني te sëñ Touba nag attention bi mu fi nekk mës jox loxo kum gënul sëñ Touba bi mu fi nekk comme mas a jox loxo boo siggee xool ko di nga xam ni moo la gën te bi nekk ci kaw suuf mës nuyu kum gënul comme mas a nuyu moo nuyu it gone ngay doon fi moom loo am as lu say at bari bari boo ko mas a nuyu gone ngay doon ci moom donte yaa ko mag ci say waaye mësta ta nangu ko mokkal alxuraan doon gone fi moom ku dul moom nag boo ñëwee ak lu say at bari bari gone ngay doon ci kanam sëñ bi waaye mësta nangu ku mokkal alxuraan doon gone fi moom ndax sëñ Mbay Jaxate nee na mag ñi fi mag mag ñooña mag ña leen mag mag ñooña ña leen mag ak ñooña ñi leen mag bun boolee seeni at sëñ bee leen mag te nee nag ndaw lu ànd ak moom takkook sëñ bi bu ngeen takkali ko ku dul moom ku dul sëñ tubaa te mësta takkook sëñ tubaa yaa koy mag te nee na foo demati lu nit ña mag-mag boo fa jëmee kenn ku fa nekk doon ta mag la woon day wëlbati ko doon ndaw ba keru nga fay jóge ndax sag mag yow nee ndaw rekk laa woon sëñ Mbaye wax ndaw rekk laa woon lu ni ràpp ak mag mi mag ñi fi mag mu def ci man mbóoti mag may mag te naa te ni ndaw ndaw rekk laa woon lu ne ràpp ak mag mi mag ñi fi mag mu def ci man mbuuti mag may mag te naa tani ndaw alxuraan ji sëñ bi daana ko nangu daana ko maye nit nit daana ñëw du mokkal wenn araf ci alxuraan mu may ko kaamil bépp mu mokkal ko nit daana ñëw mokkal kaamil bépp ba noppi ñàkk koo nangul mu nangu sab kaamil dootoo ci mokkale si dara xanaa bu ngeen di gëstu histoire ci yoonu murit dégg ngeen ku ñuy wax sëñ Mahmoud day man ñu koy gën a ci sëñ muuru Fall alxuraan way juróom imaam la woon manoon alxuraan lool bi mu génnee àdduna way juróom bi mu àdduna bi way juróom génnee àdduna mu war koo wuutu te moom mënul alxuraan mu am ci jaaxle lool ngir ñàkk maanaam alxuraan waaw loolu kay mën na nekk suñ kay yow sëñ bi dinaa ko ñaan mu may la alxuraan sëñ Mahmoud nag ay mbokkam sëñ Mahmoud bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke samay mbokk yépp dañoo mën alxuraan sama baay gaañu ma bëgg koo wuutu te mënum alxuraan te xam naa ne yaay boroom alxuraan ma bëgg nga may ma alxuraan waxtu koor sëñ bi ne ko waxtu koor de dañuy jàpp ba daanaka duñ duñ tal dara ndax gan gi demal ba koor gi jàll wax nañ ni koor gi jàll sëñ Mahmoud ñëw ni ko mbàkke kat bëgg woon nga may ma alxuraan ndax dama koo bëgg man te xam naa ne yaay borom alxuraan sëñ bi daag si ah, ok sëñ Mahmoud sëñ bi ne ko bu koor gi jàllee suñ xarit nga ñëw may la alxuraan koor gi jàll sëñ Mahmoud fal ñëw ci sëñ bi ni ko dama bëgg mbàkke nga may ma alxuraan la ma la waxoon lay feddali si sëñ bi jël bopp loxoom day joon teg ko ci bopp sëñ Mahmoud Fall dan ni ko iqra al quran ya mahmud fall yow mahmud fall jàngal al qur'an mu tàmbalee ci alif lam mim zalika al kitab di tari di tari di tari ba ala yi jidoo ma yéen fi xoon tari ñaar fukki isib te musta jàng al qur'an sëñ bi ne ko xef taxawal mu taxaw mu ne ko wàcce wuton non ci rasulullah demal ba suba al qur'an juróom ben fukki isib la mu tari ñaar fukki isib ci bés bi sëñ bi ne ko taxawal xef wàcce wutoon noonu ci rasulullah lay étape par étape loonu wàcc ginnaaw tare nga tey ñaar fukki isib demal ba suba sëñ Mahmoud dem ca suba ga mu ñëwaat sëñ bi yëkkatewaat loxo bi teg ko ci bopp bi ni ko iqra il quran yaa Mahmoud Fall sëñ Mahmoud tàmbalee innama sabilu di tari di tari ba wallahu yaalamu ma tasnaun tari ñaar fukki isib am ñeent fukki isib sëñ bi ni ko xef taxawal mu taxaw mu ni ko wàcce wutoon noonu ci rasulullah lay demal ba suba sëñ Mahmoud delu ba ci suba ga mu ñewat sëñ bi jëlat loxo bi tek ko ci bop bi ne ko iqra quran ya Mahmoud Fall mu tàmbalee wala tujadilo di tari ba minal jinati wa naasi sëñ bi ni ko ahtaytuka al quran yaa Mahmoud Fall taaliman wa tahfisan wa tilawatan wa tajwidan may naa la alquran yow Mahmoud Fall ci nga man ko jang xam ko xam li alquran di tekki lalu Sëñ Tuubaa def na ko ci sëñ yi bu way juru ki fi jóge léegi sëñ sama tama nett li nee na sëñ Mahmoud Fall moom sëriñ bu Mbàkke mas na koo wax ni ko damaa bëgg nga nett li ma bala sëñ Tuubaa di may alxuraan nu mu demee woon sëñ laaj sëñ Mahmoud Fall ni ko damaa bëgg nga nett li ma bala sëñ Tuubaa may alxuraan nu mu demee nee na sëñ Mahmoud Fall moo ni ko bi mu jëlee loxoom teg ko sama bopp alxuraan ji ni mu doon wàcc ci rasulullahi daa mel ni noonu la jàkkaarloog moom daan ne ko max naa yi doon am ci alxuraan yépp bi sëñ bi tegee sama loxoom ci sama bopp noonu la jàkkaarloog moom loolu nag ku